thank you doole rek la bëgg njol toj toj moo toj kaan ni tàng tàng tàng du gën a tàng jàngi daawe mu ne jàngi daawe tàng oo hakku noppi neexul na ah jàngi bu yuma mani ah waxuma jàngi waxuma ja waxuma jàngi de weer wi nu ne laa wax weeru koor wi xiifal wi xiifal wi weeru koor wi nu ne ndax yow garab gi ngay toog féex na féex boog moom man man bu dee da ngaa am koor sax dina ma jaaxal ah tàngaluñu mu ne tàngaluñu ko lu ñuy tàngal kafe gi <laughs> musiba ma ba kumba ay yoon man yàlla ca eh. yàlla mama mani eh. téere yi góor gi sekk woon démb mbaa aw nga ko ba noppi ne woon na dina yónni jarbaat bi fii ay góor rekk fi ne mu ay góor rekk fi ne mani ah eh. téere yi góor gi sekk ah ndaxaw nga ko ba noppi. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw góor yi fekk. waaw waaw kay. ay la la. noppi ku ko seetal ci nga dégg de. waaw waaw. waaw bon. ça va bien père. na dem. ça va Wally Touré. Wally ça va. ah ça va. day day nuyoo. waaw wa Mbaa Wopo. ça va tout va bien je vais bien. nickel. la la et puis la Ramadan c'est très bien commencé quoi parce que y a un peu de fraîcheur man déglu bu Ramadan c'est très bien yow wóoroo wóorlu woo bàyyil Ramadan gii. mais c'est l'intention dama lay wax rek ndax déglu ma mais attends c'est mais attends faut pas compliquer les choses. la religion n'est pas si compliquée comme vous le prétendez. dama déglu ma rek dama lay wax dama lay dama man xam nga faut que tu saches une chose. ma ne amul tuuti yaay yaay taw kër gi. Uh-huh. li lu li fi mën a dox bi ñu gis toolee sa baay lu fi mën a am yawa doxalal ni mu ni mu waree mos naa gis lii ah. ah. je disais que euh, père il faut que calme qu'on se calme un peu pour euh, mieux s'entendre je disais que euh, le ramadan ce qui est le plus important c'est l'intention même si t'as pas jeûné en France c'est pas grave dama yow jikko ja nga tàmm ca France ak Guinée fi bokkul ndax dama lay wax rek yéen bu ngeen nekkee réewi tubaab yële galaas ga nekk fa sedd ba metti ba nekk fa ma ni wóoroo wóoroo wóorlu woo ndax dama lay te boo dikkatee fii bëgg naa booy waxtaan ak nun waxal ci ba wolof yéenu xam réewum kocc la nu ne ay wolof la nu xam waaye ba fi ñëw di ŋaabar ŋaabari ceci c'est ça ceci di fas ke xànc ak morom rek di fas gi teg nun dund nu loolu koŋ-koŋ première dame ah ni nga yeewoo toj na ni nga yeewoo rafet na fii toj na léegi la waa koñ bi gën nan ma cuuraay ju neex ji kan moo koy xeeñ ma ne leen première dame rek ba mu sëy sëy la kër gi xeeñ neex man jox naa la lépp daal macha allah tabaarkalla macha allah nelaw nga bu baax. naka sa liñ dem yel ngi suus lépp a ngi neex lépp a ngi baax tarkalla sama waa ji kenn du yow kenn du yow man dama la bëgg bëgg sa jëkkër ndax sa jëkkër tàkkal lu nu mën moom la loolu nu mën rek moom la kenn lu xew dara tam ci yéen rek yooyu baa sonalu la chef de quartier bi korek ba ma woowee ci réunion jigéen ñi xamal naa ko ni dafa am gan gu war a dugg ci sunu kër te dafa xees ay yoo da koy sonal bu mu la matt wóorul feebar yi dafa bëri waaw nelaw nga bu baax sama jeeg bu baax ma joojo laa laa soxla waaw yeel ma ko moom xam na li ma koy doyee xam nga fan yii bëgguma leen yéen kon yéen si ligne de miel bi semaine boobu yëpp bëgguma leen woon yee di leen déranger. dafay nelaw lan nga soxla. Hmm, facture bi laa koy jox. facture la. courant bi. waaw fan yii xam nga comme comme comme comme. kii mën nañu ko wax. baax na yàlla de bëri na sutura. oui c'est moi. dégg nga boo ko fajul man je je je je. non je t'ai appelé à maintes mais en vain. ah ok tu as quitté la Versailles maintenant. tu es où? à Liège. mais mais ne serait-il pas mieux. ah ok ah. dafa la ah Madeleine elle a été toujours comme ça dafa lakkale tu as bien fait de quitter Versailles non non j'ai pas besoin de grandes choses j'ai juste besoin de quelques portions de caviar pour le mois de Ramadan ça m'ira mieux ok ok bébé Dior kontaan naa mais quand même foofu c'est bon mais un hectare yow kese est que tuutiwul da ngay wut ay autruche ak antilope nga def leen fa quand même ñu wétali ana pipi dafa gaañu oh je suis désolé mes condoléances bàyyil bu may dem ba Burkina Faso naa la wutal monade bu ndaw ah. benn problème ok à tout ah, sinon ana nekku fi ma jojo ma jooja newu fi na ma ni nekku fi nekku fi te bëgg naa bu nu toogatee di waxtaan nga jug dem sa yoon banu eh, da fi laa koy xaar foo koy xaar doo ko xaar fii nag fii dama ni la fii man maay borom kër gi dafa dama ni fi laa ma jooja fi laa mu ñëw fii moomu leen ko yëg koy ma jooja lay wër te boobaak léegi mi ngi leen dem meel ci biir néegam ah mais c'est bien mm-hmm. c'est très bien ça c'est une très bonne chose mais li ma jaaxal mooy euh, pourquoi père yéen mu nekk en lune de miel et vous l'étouffez comme ça moom mënul doxantu normalement ci yoon nit bu nekkee en lune de miel dañ koy may espace comme ça il peut s'épanouir avec sa femme comme il veut mais bu ngeen toogee ci diggu kër gi nii comme ça dootul génn du mën a jaabanjalee du mën a jaabante du mën a am espace libre vous quittez la maison. man waay man man maa yow tëjal sa ngaam yi eh, nga ngaam eh, eh. yow da nga ci gis ku nekk leen demel di. per per nga bëri ko fula a bàyyi ma joojo maanaam la muy def ci biir néeg ba léeg-léeg mu génn ba ci ëtt bi def koog soxnaam du gàtt ci néegam. déedéet weeru koor ma joojo ci ak cit la nekk. dégg ah? ci c'est ça la loolu laa wax dama ni. dama ni ah euh, a faut que moom euh, ma jooja. jërëjëf yéen ngeen jóge ci gi comme ça mu libre. du génn kër gi de mi ngi ci nga daa mu génn kër jóge ci kër gi dem fa. ok attends maa bu ma fatigué franchement bu ma fatigué ah yéen ñu lakkale ngeen parce que sëriñ bi ah. waaye doxal ak sa doom ngay mel na kana ngay mel na kanaara nii muy bëgër bëgër. moom. ah ma xam nga li tax mu ñibbisee ah maanaam ca nasaraan ya mu nekkoon ah da doon tukki du kuk saxaar siis bi mu toogoon am ku ca toogoon fa fa fàtte ca puso bam ca toogee nag moom naan ñeex ma te naan neex naa